Uh, asalaamaaleykum bakkan ya rotati nañ deret ja wala ngaan ci tali bi fukki doomu aadama ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan ci accident bu métti ca diiwaanu njum allah vox populi moo ñu ko xamal tëli diggante njum ak gede fa la yëf ya xamee ñaar fukki doomu aadama xam ay gaañu-gaañu fukki soxna ñàkk ca seen bakkan ñaari chauffeuru oto ya ñoom tamit faatu nañu ña faatu nag ña ca gën a bëri benn njaboot lañ ñoo bokk jëw nañu ñuy dénk wàllu dem beeg dikki bi ne doxalin bu ñaaw moo andi accident bi ndax fa ñoo sii sarcé duy lu ëpp seen xoto ya l'observateur na ko accident bi ma nga xamee ca goudron tëli njumba ni ki démbu ci suba deret ji tuuróoti ci kaw tali bi juróom-ñaari nit bokk ca ña faatu seen foto yaak seen tur ya nañ bokkee léppañ ca biir yéene kaay ba libération ne ab minibus fa mbëkkante ab ab kaar njaga njaay li ci garaaw nag yéene kaay bi nee na chauffeur ba doon dawal oto minibus bi fa doon nelaw mujj wàcc yoonam dem jàkkaarloog njaga ba ñu rañaa ñante tampon tel fukki doomu aadama ak benn faatu ca saasi bokk na ca juróom-ñaari soxna ñeenti fukk ak ñeent xam cay gaañu-gaañu ñaar ña gaañu-gaañu yu garaaw mujj gi nag ci la yeneen ñett mujj faatu turbine yéen kaay na accident bi garaaw na mitti na doy na waar réew mi yéen kaay na ko fukk ak ñoo ca dee fii Sénégal waaye am na beneen accident bu am démbu fanweeru doomu aadama ak ñeent ñoo ca faatu ma nga a yéen kaay ne a jeexal wi léegi nag accident yi oto yi ñu ngi ñëw jeexal ñu te mooy yéen kaay na ko accident bi kay démb li faatu ci réew mi ci kaw tali naa ëpp li corona bi rey remontada bi am ci football am démb diggante li dee ci accident yi ak corona bi lim rey le soleil yéen a kaay mel ni kuraan accident yi hëpp na nañ ci waxaat yow seetal junne ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn accident moo am ci juróom-ñaari weer Sénégal réew mi yéen a kaay na ko ma yokkal la ci fukki nit ak juróom faatu nañ ci accident ci juróom benn weer juróom benn téeméer ak ñeen fukk ñeent dee nañ ci kaw tali bi ci benn at nay laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy docteur ba jiite woon district bu diwaanu ndar corona bi rey na ko réew mi yéene kaay moo ñu ko xamal l'observateur na ko xam nga corona bi léegi mi ngi rey ay docteur médecin waaye tamit soxna yi nga xam ne fa ñoo ëmb wannu lor ba pare am corona ñoom it ñi ngi deede bëri nañ nag laas yéene kaay ne njiit réew Macky Sall nag jël na dogal oxygène bi ñu nokkee ci ñu nekk ci diggante dund ak dee léegi fa koy may clinique privée yi maanaam duñ fay dara ñu jox leen oxygène ba tax soxna Mimi Touré rafetlu jëf jooju Macky def yéene kaay bi na ko yow kay Mimi fa ngaa ñëw wàllu si Macky Sall mi nga xam ne amee dumu toll ni fa jaaxle yaa ngi koy jàppal tànk de source ay yéen a kaay ne ñi doon wax naan oxygène amatul ci réew mi wala njëg li fa cher Macky ñëw far may ko privé yi loolu mooy firndeel ne ñaari wax yooyu nga xam ne dara du ci dëgg Macky rey na ko ba mu dee kenn dootu ko fi waxati de laneen lu ñuy wax nag ba tey di ci sàkk Macky sàll mooy mu xamal ab enquête ci jumtuwaay yi nga xam ne fa ñoo wax ne fañ koy jaay privé yi te ñu feebar corona soxla ko info yéen a ñu ko xamal yaw seetal Moustapha Diakhaté fa wax ne docteur ñaa bi joxe xibaar boobu te ñu ko plainte nee na nañ ko bàyyi may ko jàmmam am li ñuy xaar mooy Macky ak ñi àndal andi ay tontu ci tuuma yu garaaw yi nga xam ne ma Madiambal Diagne tuuma na ko fi loolu la askan wi gën a soxla Thierno Lo ne waaye man nag maa ngi sàkk yoon def liggéeyam jëwriñ ji Diouf Sarr fa war a porter dëgg la ngir yëf yi leer Bougane Gueye Dany moom ma ngay sàkk ñu amal enquête ngir jaay boobu leer ba tax ñoom danañu dem tey ca OFNAC kalaame ji ko ba ca procureur alerte yéene kaay na ko Bougane Gueye Dany kay waxaat na xibaar bu garaaw ah. yow seetal nee na gaañ fa ñoo amal marché gré à gré bu jege ñaar téeméeri milliards ci mbiru corona bi naka noonu matériel yi jaay kon ñaari enquête lañ bëgg ñu xamal docteur ñaan ak mi joxe xibaar bi tey jii lañ ko woolu sa gendarmerie nationale 24 heures yéen a kaay na neexut ba neexut waaye Macky Sall fa am jafe-jafe ngir lijjanti toppatoo wér-gu-yaram mu askan wi si jamono jooju Ousmane Sonko moom Sénégal yu bëri fi mu toll nii fañ koo gën a bëgg a ànd ak moom ndax li muy critiquer Macky di huññi seeni mbóot ba pare lii lañ war a def laa lañ war def sénégalais sax fi mu toll nii ñu bëri nga masque wu ndax Sonko Bougane Gueye Dany tamit donte yéex naa jóg ak dal ci nguur gi fi mu toll nii mi ngi gagné ay point ci askan wi docteur Boubacar Niang bi wax na fa ñuy jaay matériel yi kër docteur yi ba ministre bi porté ko plainte xam nga lu mu wax tey ci tribune yéene kaay nee na la ma waxoon ba tey maa nga ca deltuuma ci ginnaaw matériel yi ñuy jaay lu ji njaaga jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gi-yaram mooy njaag mook service pharmaceutique am yi te ñoom biñ ma jox plainte bi sax niñ ko defee jaarul yoon man ma jaar waneen yoon ngir wax leen coowal mbindu mi ci yi ñi nga xamante ne xam nañ fukkaat ak juróom-ñett taamuñ carte d'identité CEDEAO yi di ay ndaw te ku jegi bëgg ñu bindu ginnaaw bu ñu yóbboo extrait de naissance ak résidence Walf Fadjri yéen e kaay di ñu leeral pexem ku jegi Le Quotidien yéen e kaay na ko gis nga seen pexe moomu Macky fale na fere ne ñoom ku jegi ndax fa bañ dàq ne kenn du bindoo ci liste yi ci ay kayitu juddoog yu ma la mën te wax déedéet loolu du fi xamee de laneen lu xam ca biir yaanaa maar mooy pëccëxoo kàrt ga jaxasoo na fa de lépp ndax coowal kilifa li yaaw seetal waaye yaanaa maar yi démb fa ñoo génn wax nee nañ fa ñoo xam le ne lii kilifa def ci wàllu passeport yeeg xaalis bañ ko jox ak ñoom seen yoon newu ci mbiru boppam la bu ci kenn tudd yaanaamaar terewul sax kilifa moom bind na leen bataaxal na leen fi mu toll ne dakkandi naa sama yëngatu ci yaanaamaar vox populi moo ñu ko xamal ba pare nag ne kilifa kay ñaareelu vidéo bi nga xam ne leeral moom la wane moo ko yàq fa leer naañ ñi fi mu toll nii na xaay ba mu encaissé mbiru visa la ak ay passeport diplomatique werante bi kay jeex na tàggat yaram Augustin Senghor wax na programme am ngir ñu falaat ko mu jiite fédération bi xam nga lu mu ko tuddeem Sénégal man koo wuti ndam li maanaam gañe ji coupe d'Afrique ñaata at yaa ngi Augustin di tontu nee na ñi nga xam ne lañ dénk football bi ci Sénégal maanaam ligue yi ci diiwaan yi ñoo sàkku ci man ngir ma nekk candidat te mënu maa bañ loolu Mbaye Diouf Dia nee na nekkatut candidat Augustin lay jàppale stade yéen a kaay ñu ko xamal tribune sport mel ni ku naan leen yéen moom xaw ma gàcce ngeen ci footballu Sénégal ndax fi mu toll nii FIFA génnewaat na liste stade yi nga xam ne ci Afrique fa la ñuy footballé mooy douanier bi nga xam ne fañ koo rayoon Léon Yuga Faye ay mbokkam nag ñu ngi sàkk yoon def liggéeyam ka ñu na nag moo ko faat muy Ansu Savané jàllal nañ ko ca kaso ga critique yéen a kaay ñi ko xamal réew mi yéen a kaay di ñu xamal ne benn waay daal bu dëkk ca Malika fa sàcc juróom benn million ba pare nag daw dem làqatu ji ca sëriñam ngir mu làq ko aar ko mucc ba kenn du ko jàpp